ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اغتياب واغتنام إلى الإسلام مع ترك المحال جواد ITFA institute Al Madina Travel Salum Jidda Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bi bismillah الدرس الثالث من كتاب أيها الولد لأبي حامد رحمة الله عليه قال أيها الولد النصيحة سهل والمشكل قبولها My dear son, to advise others is an easy, is an easy matter. The difficulty is accepting advice. Giving advice is very easy, but accepting it is the matter. Why? Say, لأنها في مذاق متبع الهوامر. Since it is better for those who follow their own inclinations and desires. إذ المناهي محبوبة في قلوبهم. They love the forbidden from the depth of their hearts. على الخصوص من كان طالب العلم الرسمي مشتغلا في فضل النفس ومناقب الدنيا. This is more applicable to seekers of knowledge and students of learning, those of them who are busy in the self excellence and the benefits of this world. فإنه يحسب أن العلم المجرد له وسيلة سيكون نجاته وخلاصه فيه وأنه مستغن عن العمل. They believe that mere abstract knowledge without proper action rescue them. وهذا اعتقاد الفلاسفة This is the belief of the philosophers. Subhanallah al-azim. Then he said, لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد. They do not know this uh, much that when they acquire knowledge, if they do not work according to it, the indictment against them is a way more certain. And then he quoted the hadith, إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ The person most severely punished on the day of judgment is the learned one who did not follow Allah subhanahu wa ta'ala's guidance and did not benefit from his knowledge قال وروي أن الجنيد رحمه الله رؤي في المنام بعد موته it has been narrated that uh, someone saw al-Imam al-Junayd after his death in a dream فقيل له ما الخبر يا أبا القاسم and Junaid was asked what news do you have Abul Qasim oh Abul Qasim Abul Qasim is a laqab or a kunya for anyone whose name is Muhammad but especially Sayyidina Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال طاحت العبارات وفنيت الإشارات وما نفعنا إلا ركعات أو ركيعات ركعناها في جوف الليل Junaid said Perished are the speeches and vanished are the allusions. Nothing benefited us except the prostrations which we made in the middle of the night. Junaid was an eloquent uh, scholar. And when he spoke to people, his speech reached the hearts of the people because of his state and his maqam. He said when he died, all those speeches didn't benefit. only actions benefited. We say rukayatun raka'na, you know, those raka'ah we prayed at night. Yes, we should speak that which is good with the near, it becomes an action. But fulfilling the speech is a way more, more difficult. Ask Allah wa ta'ala to grant us tawfiq of knowing and acting according to the good things we know. ببركة القرآن الكريم xurmatil xabibi sallallahu alayhi wa sallam